waxtaanee jàngoroy coronavirus ak dogal li nga xamante ni jibee na ci njiitu réew mi président Macky Sall euh, ci euh, li nga xamante ni mooy euh, karagat lii di xeex jàngoro ji ndax yu doy la ne ay mesures wala dañ caa war a dolli yeneen mooy waxtaan week RFM ak ñun ci téléphone bi monsieur le ministre Abdoulatif Koulibaly Coulibaly mooy porte-parole bu président de la République monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu baax salaamaaleykum Assane maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi leen ay déglu. jërëjëf jërëjëf Birahim Seck coordonnateur général forum civil euh, Birahim maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax El Hadj Assane di nuyu Sénégalais yi di nuyu également monsieur le ministre Abdoulaye Latif Coulibaly. jërëjëf monsieur le ministre euh, li ñuy waxtaanee lan moo ci xalaat bi nga ci am ci wàllu mesures yi tukkee naam ci président Sall ndax dañ ko war a yokk wala euh, dañu naan yu méngoog fi nu toll la. salaamaaleykum sëñ. suñu asan waaleykum salaam maa ngi nuyu suma rakk mbiraay suñu asan xam nga li nga xam ne moom lañu war a moytu mhm. mooy man lu ma nekk nekk ministre euh, barak démb ji samedi maa nga toog mhm. fañ doon waxtaanee mbir mi manu ma wax ak lu ma fa jege jege manu ma wax ndax dañ war a yokk ndax warta yokk mhm. su la waxee wax naa suma xalaatal bopp waaye xam nga mbir mi nañ fexe buñ di ànd ak suñu xalaatu bopp rek na hmm. nañuy fexe xalaat ba ñuy wax di ko wasaare mu dëppoog ak ña nga xam ne ñoom la yàlla may xam-xam ñu tànn leen hmm. ñuy toog di xalaat ci mbir mi naka lañ ko war a tëralee ak naka lañ ko war a doxalee hmm. te ba mbir mi xewee ba léegi réunion yi ci def yëpp yàlla may ma fekkee naaw ko le mars dañu toog kilifa gi ne ñun wàllu politique lañu yore décision politique waaye dama bëgg ci lii lépp loo xam ne dañ ko ci teg muy décision bu ñuy jël nañ ko teg ca la nga xam ne yéen borom xam-xam yi ñu tànn leen ngeen nekku leen fi tey rek parce que comité de surveillance épidémiologique au Sénégal hum. depuis Ebola nekk ñu ñëwoon fi la fi nekkoon gannaaw loolu sax amoon na comité boo xam ne embryon la woon waaye léegi dañ ko defar tënku ko teg ko tabaxal ko sax benn siège benn docteur bu ñuy wax suñ buusu Ablaye buusu jiite ko. comité boobu xam-xam bu nee fa ne. parce que épidémie bu bu bu bu bu dekkee ci réew ñëpp a caay wax ñëpp a caay jëf. nit mën nay am sa xalaat yaakaar ne loolu la dëppoo ak mbir mi noonu lañ ko war a defee waaye nañ bàyyi ñi nga xam ne ñoom lañ fa teg ñoom xam-xam ñu wóolu leen. Hmm. ay économie sang fa ay homme d'affaires nga fa ay entreprise nga fa. ay docteur a nga fa ay anthropologue nga fa ay sociologue nga fa ñepp nga fa mhm. wax nañ comité préparatoire bi def comité préparatoire un milliard cinq millions la soxla kilifa gi dinañ ko jox def leen caisse d'avance du procédure ñu def leen ngeen def mhm. ñu Sénégal parce que nous ñu réunion le 2 mars waaye ca biir réunion ba maa ngi fàttaliku kilifa gi nee na am na ñaar ñoo xam ne siñaale nañ leen xëy na balaa ñuy jóge sax ci réunion bi dañu annoncé ne positif nañ mbala positifuñ hmm. waaye ñen la ñuy déglu ci leen wax comité bi ne lii la ñuy def lii la ñuy def président jël dogal yi moom ci wàllu politique defal dogal loolu hmm. barak démb samedi bi ñu ñëwee dafa ne comité bi ñun de dañ leen ay déglu ngeen wax ñu li nga xam ne loolu mooy li nga xam ne fa lañ war a jëm ak boobalu la comité bi ne gannaaw la li am pour ñu def endiguement endiguement mooy ñu def mur boo xam ne dara du sennat yi hmm. nañ jublu fi nga xam ne feeñee na fa fexe nag du foofu du nekk foyer boo xam ne dafay lawee nag di dem feneen feneen ci loolu lan la ñuy def comité bi ñoo ne lii ak lii ak lii ak lii lañ yaakaar ci suñ jàpp tey ne hmm. mën nañ fi yemagum bu laajee leneen ñu demaat leneen donc moom kilifa gi. lépp lu muy teg ak dogal. Mhm. daf koy sukkandi. fa la koy wéer fa la koy wéer. Mhm. te nag du moom rek ay doxalee noonu. Mhm. gis naa président France Barak Deme bi muy wax dafa ne. techniciens yi ñoo ma wax ne ma mën nañ def élection yi ñu dem ci ay élection te lu ma dëgg yëpp ci àdduna bi noonu lay doxee. xëy na ñun mën nañ am xalaat bu rafet. xëy na xalaat boobu xëy na buñ ko defoon sax xëy na dina am lu mu indi ci lu baax waaye nag. wax dëgg yàlla man fi ma toll nii mhm. li ma sukkandiku daal mooy li ñu def nii nañ ko wéyal mhm. waaye nag gouvernement décision la am la waaye décision bu ñu ko wéyalee ci ñi nga xam ne mooy ñun ñii ñu jàpp ne ñun ñoo ko war a doxal bu doxee ñun la mhm. te ñu jàpp ne it su pour aar ñu la suñu si suñu bopp kon mbir mi defe naa dina avancé foo xam ne fii dañ fa mën a dañ fa mën a jéego dem fu sori. très bien bi euh, Birahim ci ci wàll woowu naam lu lu lu xel nangu la li ëpp ci dogal yi tukkee ci njiitu réew mi wéeru ci xam-xam ak ñi nga xamante ni ñoo yëngu ca ci ci mbir mi. Euh, terewul nag boobaak léegi yenn ci xalaat ak càkkuteef di fës yow dégg naa souvent frontières yi daal mooy sa préoccupation yow. waaw jërëjëf euh, El Hadj Assane d'abord damay commencer di jaajëfal le président de la République sa mesure yi nga xam ne jot na ko jël pour euh, jéem a fànq jàngoro ji nga xam ne jaaxal ne adduna te mi ngi bëgg a Sénégal donc loolu déjà ñun forum civil dañ ko ci jaajëfal parce que bokk nañ ci organisation yu taxaw ne il faut que président de la République jël mesure pour dalal xelu sénégalais yi euh, damay jaajëfal également euh, kilifi diine yi parce que moo doon pré préoccupation majeure bu sénégalais yëpp maanaam mhm. lépp loo xam ne na rassemblement ci le rassemblement wu diine bu nekk ñàkk en tout cas rassemblement mhm. gouvernement bi jël ci mesures euh, chef religieux également donc dañu leen jaajëfal parce que tey taxawaay dañ euh, républicain mhm. euh, di wax rek le gis nga mbiru coronavirus tapa a expert mais nga li ci dëkk bi parce que wax nañ ko bu par exemple loo ne euh, yam yam yam na Europe ñu mëna wax bu doon yam na yam na États-Unis wala yam na eh, eh, Chine ñu ñu ñu mën wax ndax tey am na jàngoro yi am na métti yu gën a métti yoo xam ne mi ngi dal Afrique hmm. euh, te amul communication bi tax ñu war mais ni muy propagé wu ni muy gaawee ci biir askan wi moo tax ñu wax. Hmm. ndax ndax lu toll na xiif dama jox exemple lu mel ne xiif mi ngi rey lu toll ci vingt cinq mille personnes par jour te boobu nit ñi nit ñi xamuñu ko nit ñi waxuñu ko donc bu ñu wax ne nañ ba jël mesure yi nii dëkk boo dem ci monde bi tey. mu nekk Colombie ñu ngi doog a dugg ci mbir mi mu nekk Venezuela ñu ngi doog a dugg ci mbir mi mu nekk Espagne bi nga xam ne mooy premier pays bi nga xam ne moom lañ gën ñoo gën a touché. Hmm. Mauritanie gii nii wax nga ko sànq am na kaam jël na ay mesures am ci frontière am. Hmm. Euh, euh, euh, yeneen dëkk yi également ñu jël ay mesures nekkul ne dañuy boddi même Chine bi nga xam ne Chine bi nga xam ne. Hmm. fa la jàngoro bi juddoo. tey jii Chine étranger bu fay dugg jëm Pékin dañuy mettre en quarantaine waaw bu fekkente ne dëkk boobu noonu tey tey. moom la fa la jàngoro bi juddoo de de ñëpp am adduna bi yëpp mànkoo ànd ak moom taxaw pour xeex ak moom tey jii ni mu dellu également daal di ne bépp er, étranger bu fay dugg dañ leen mettre en quarantaine mhm. je me demande suñu économie ñun je me demande également suñu euh, euh, plateau technique te ñëpp xam nañ suñu plateau technique mënul soutenir mhm. bu fekkante ne euh, jàngoro ji dem na dem na dem na yenn yenn yenn yenn propositions léegi léegi Balma quelles sont les propositions wala boog la proposition du forum civil clairement au-delà au-delà euh, mesure du président jël il a fait jii jot que président de la République jël mesure mesures yoo xam ne. Mhm. mu jëm ci dëkk yi nga xam daf leen daf leen touché bu baax. Mhm. mu nekk Espagne. mu nekk Italie. Mhm. mu nekk France surtout France nga xam ne même média français war nañ irresponsabilité français yi. bañ a topp dogal yi euh, gouvernement français mi ngi koy joxe waaw. bu fekkente ne dëkk boo xam une population ils sont assez irresponsables pour toutes décision yi nga xam le gouvernement Donc wax. Hmm. te nous ñu parce que Amna ay relais au niveau de Cap Skirring Amna ay relais au niveau de binyana que Amna tous hmm. touristes signes ñu de continuer di hmm. mais ñu suñu dëkk dañuy toog di xoolee daan na wéy ñu ngi un comité technique alors que nous bi ñu continue continuer di dugg. am na loo xel moo koy mot. dañu wara arrêter vol yi ci France Espagne Allemagne Italie. Italie mm. très bien mais mais mm, mm, dafa décision président ah ñu xam ko président euh, décision daf ko jël techniciens. également yoon bo mu gën mais également techniciens. ay ay ay juristes ñu fi. ay ay ay médecins ñu fi. waaye li nga xam ne tey moom la ñëpp teg seen bët tey ji nii te ñëpp xam nañ ko virus bi nekk loo xam ne dafay judd ci juddul Sénégal. Hmm. mais lu juddul Sénégal même bu fekkee da nga stratégie militaire loolu ñëpp xam nañ ko boo bëggee défendre sa bopp kay da nga défendre li wër li la wër. Hmm. mais boo nee ne wéy bu ñu ne kaa feeñ na ci batalo Joola nga daw fa bu ñu ne kaa feeñ na Touba nga daw fa. alors que li koy dugal doo ko arrêté am loo xam ne xel moo koy motali en technique jërëjëf Birahim monsieur le ministre ci fànn woowu ndax euh, nit ñi aussi naam li nga wax sànq euh, lu wér la ci euh, ñii di experts yi waaye askan wi comme dafa am préoccupation am xam naa ak pàttali rek lay jëm lay doon jëmee ci yéen ba ci kilifa gu mag gi ma ne su la bañ a déglu préoccupation yooyu waaw sëñ Assane bi fi may wax ak yow li Birahim di wax hmm. kenn bañalu ko waaye li may wax rek mooy waxuma ne duñu jël mesure boobu. xëy na moom ni mu gisee dañ ko war a jël tey. waaye ci loolu am naa ci xalaat boo xam ne du suma xalaatu bopp. Sénégal dafa lëkkaloog dëkk yoo xam ne yii boo jëlul avion ñooy man nga jaar feneen ñëw dugg ci suñu. te boo tëjee ci fi ñu toll nii waxuma ne tëj baaxul de. waxuma ne waruñ koy def dama ci am xalaat rek ku nekk xalaat. boo ne avion yi ñëwatul.

ñoom lañ gën a mën a natt xam fan lañ jëm xam fu ñu ne hmm. parce que avion ku ne cëpp ndakaaru am na ci benn cas dafa ne cëpp ñu jël ko yóbbu ko hôpital xam ne am na ko yoonu suuf yi moom nit ñi mën nañ duggee fu nekk ci àddina hmm. ñii mën nañ wàcc Gàmbi jël suuf si jaar gannaaw Karang kër Alsane Diallo yegg si biir Sénégal hmm. ñi jógee mën nañ wàcc Guinée jógee Guinée ñëw loolu moo tax ñu ne li ma yaakaar ak li ma gis. aéroport bi moyen de contrôle la. dañ ko maîtriser parfaitement moom lañ gën a maîtriser ci yoon yi dugg yépp moo port bi. boo ko tëjee am na ñu bari ñoo xam ne dañ fa doon jaar ñu mën leen a gis dootoo leen gis loolu ci xalaat la. te it nag beneen affaire dafa am. maraw bi tëj dégg naa léegi seen rajo bi ngeen ne taxaw na taxawal na six cent treize milliards. pour yokk li nga xam ne mooy jumtuwaayu santé bi mais itam sukkande économique ci benn wàll tëj bi it il faut ñu xam ne bu ñu tëjee cargo yi nga xam ne ñooy indi marchandise yi ñoom it mën nañ ko fi indi hmm. te marchandise à la kuliyaalin mënuñ ko ñàkk a indi parce que médicament yu yore bitim réew lay jóge hmm. lépp loo xam ne xeex jumtuwaay la à part ñun comportement bi ñu war a am hmm. ak distance bi ñu war ak yenn yi

foyer communautaire de contamination bobu mo gëna nek nekk lieu de préoccupation fondamentale mhm. fexe mom endiguement bo xamné ne du jàll ah. manam du jall moy du dem ci yeneen région yi mm. parce que tey jii ñu wax ñaari région rek def na yàlla foofu rek la nekk Diourbel ak dakar mm. comme loolee am na naf nit ñi fexe xam ne li gouvernement bi aaye ak li gouvernement bi recommandé ni nga xam ne loolu fa ñu wàccoog mom très bien parce que euh, dégg na léegi sen radio bi mhm. marché Ocass marché ak fenen ak fenen ak ndakaaru gi nga mhm. xam ne na fi tam nit ñi nañ doon dundee démb ñu ñuy bi ba léegi wuñ dara nit ñi war nañoo soppi mais ci wàllu dogal yi moom xam naa ni euh, waree su la dàq benn dogal bu ko laajee ndax jàngoro ji moo di ci kon euh, lii nu dëgmal ni di ñëw on peut s'attendre vraiment à toute autre décision waaw c'est-à-dire il faut ngeen xam ne à part réunion yu ñuy def. Mhm. communiqué tous les jours contre mhm. rendu bi nous muy amee le la kilifa gi di jotee compte donc rek adaptation day am c'est-à-dire de adaptation fay am. ta ñak té ci lolu ma dalal xel. oui té ji ñu nek avion jógeetul Espagne ñëw Sénégal. Mhm. avion jógeetul Italie ñëw Sénégal. avion yi mu a ñëw fii jënd ay doomu Italie. Maroc lañ doon jaar di ñëw té Maroc avion dootu fa jóg ñëw Sénégal. ok depuis mois ci goudi xam ah loolu xel mën na ci dal. te ay tere la ay interdit la. wala c'est pas encore décisif xam nga ci boppam. moom moo ne dootul indi. ku jógee ci avion dugg bu réewam ci Italie. boobu waaw Italie ak moo taxoon may ndax. Sénégal la dogal Italie Espagne xam nga Air Sénégal moo doon dem jëli. suspendre na wolom yi nga xam ne Barcelone la doon dem ñu indi ay nit. léegi Royal Air Maroc bi nga xam ne moo doon indi ay nit it. dootu fi ñëw. xam nga xel mën naay dal. ok air Tunisie ci boppam na indi ay xam nga sommes xolé ni ñu doon jaar di parce que yi ñu wax ñu ci bari eh, eh, yoon lañ jaar. Alger Tunis Rabat Casablanca yegg si fii. Mhm. ñooñu ñoom ni man da def Espagne amatu mhm. kon ñaar ñooñu malheureusement li ci dess di dugg di yoon yoonu suuf yi di ñëw. ok donc renforcement euh, frontière terrestre yi moom. loolu moom loolu moom jarut a xaar sax war nañ ko léegi tàmbali. voilà mais xam nga renforcement ci point yi nga xam ne lañ indiqué la. Mhm. mais soo demee dëkk bu nga xam ne comme Karang man xam naa ko. Mhm. boo jubee Kaarang dafa yomb pour nga ku dugg ci euh, àll bi. Mhm. dafa yomb trop boo demee Kaffrine aussi boo jógee Banjul bu la neexee rek nga dugg jaar ci euh, mbooy mi dugg si mm. biir réew mi. Mm. donc frontière terrestre yi. lu jafe la. dëgg la lu jafe jafe la. mais li li sëñ Birane di waxe tam mm-hmm. ni man na koy nangu xel man na koy nangu. mais néewuma duñ ko def. Mm-hmm. mais loo gisee xel yi dal ci loolu. mooy pratiquement suuf su boobu dafa tarir muy commencé di tarir. ok voilà jërëjëf monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm waxtu moo ñu dab ñu jeexal ak Birahim Seck rapidement Birahim rek ci ci wàll nga xamante ni euh, tegtal jugee na ci euh, monsieur le ministre Abdou Latif ndax dal na xel wala boog ba tey da nga naan rek nañu bu ñu doolee nga jël. waaw xam nga décision yu ñu wax yëpp décision yu jóge ci yeneen dëkk la. Mhm. nekkul loo xam ne décision Sénégal moo ko jël en charge. te bu ñu nee également ñu arrêté vol yi waxuñu vol yi nga xam ne dafa indi ndimbal wala indi lekk wala non non. Mhm. vol commerce commerciaux yi la ñuy wax.

bu ko bu amul également ñu wàññi ko tuuti def ko responsabilité mu nekk une responsabilité patriotique. une hmm. responsabilité civique et une responsabilité citoyenne. Hmm. Euh, leneen loo xam ne également euh, euh, jot jotuma ko wax ci français moo di lancer un appel et di encourager di féliciter encore une fois le ministre de de de la santé. Hmm. ci mesure bi nga xam ne jël na ko ci information ci infox yi nga xam ne. mi ngi jàll ci réseaux sociaux yi. di jàll également ci yenn sites yi di jàll loolu mesure boobu noonu nañ ko gën a taral. te également mesure yi président de la République jël nañ nañ nañ nañ gis ay nitu état ci terrain bi. man gisuma policier enfin amna premier goudi gi. Hmm. avant même application dugg gis naa ay policier di wa génne ak ci boîte de nuit hmm. mais nañ mobiliser armée bi. nañ mobiliser police bi. ñu gis Sénégalais gis ne état bi mesure mi mu mi ngi appliqué sur le terrain. nit ni tamit am lu ñu ragal sénégalais mom bala mo taxaw ragal te buñ ko bàyyi fenn parce que lii nekkul njëriñu ay poos parce que. Hmm. bala nga naam bala nga naan naam ne fa. ba bala nga nekk fi naan ay commerce aw ma xaalis am naa xaalis ak yooyu hmm. noonu nga am santé. na santé encore une fois. na nekk une responsabilité générale de tout le monde. Hmm. te loolu la loolu la forum civil di ñaan gouvernement bi di ko ñaan Sénégal yi di ko ñaan également média bi di ko ñaan également organisation société civile yëpp. am na solo Birahim yaa ngi leeral nag ni bateau yi indi ceeb moom buñ ko téye.